Euh, tey li ñu fi dajale nii si euh, région de Diourbel dañuy def ben waxtaan euh, lu ñu tuddé waxtaan ci walu ndox parce que Sénégal day organiser Ben waxtaan bu yaatu bi nga xamanteni day dajale aduna wërngal këpp acteurs yi nga xamanteni ñoy yëngutu si walu ndox yëpp ci aduna bi wara dajé Sénégal donc nag gouvernement Sénégal à travers la direction de l'eau de l'assainissement ak le secrétariat exécutif chargé de l'organisation du forum ñu wax ni jaadu na région bu nekk ñu lal fa ay waxtaan donc tey région de Diourbel moom moo pour que acteurs yi nekk si région bi yëpp muy monsieur le gouverneur di euh, techniciens yi di population yi secteur privé ñëpp ñu dajale pour xool en tout cas fii si région de Diourbel ndox mi nan la fi tëddee lan moy jafé jafé yi ak aussi yenn proposition lañ mën def ba nga xamante suñu démé ci forum bi daan ko mën a teg si table ji euh, mu yóbbaale euh, région de Diourbel. waaw Diourbel euh, mën nañu wax ne ndox mi am na ay jafe-jafe si wàllu jot si ndox mi xëy na li moom lañ tuddee accès ndox mi doy na parce que boo xoolee état bi ak collectivité territoriale yi góor góorgóorlu nañu bu baax si wàllu boobu si wàllu samp ay forage si wàllu aussi dafay adduction d'eau potable pour que nit ñi di mën a naan jur gi di mën a naan mais jafe-jafe bi gën a tar mooy ci wàllu. qualité ndox mi manam dal ndox mi amna luñ ci wara soppi touti ba xamanteni non seulement naan bi dina gëna neex ben benen bi jur gi di si mën a naan bi aussi ñu ci mën di bay euh atum lëmb donc fofu dal la jafé jafé bi xawna benen jafé jafé jafe bi mooy si wàllu nu euh sayto ndox mi manam dal ñun koy gérer yeen acteur ñom ñoo ci wara a bu ñëk gisoon nañu gestion communautaire la ci hmm, biir collectivité territoriale mais ñu xaw ko privatiser lool aussi xaw nekk jafé jafé ak timit collectivité territoriale yi ban position lañu war a mën a am pour di gën a mën a bokk si ni ni euh, saytoo ndox mi ni koy gérer ba comme ni ñu ko waxee sànq ku mën a am am ndox euh, naan mais aussi mu nekk ndox mu sell. waaw euh, si saafara yi ñi ngi xaar nag bu baax comme sànq ni ko ma doon lugu gouvernement waxee ci ñu def ay unité de portabilisation loolu dina xaw am solo trop trop parce que ndox mi faaw ñu saytuwaat ko xool ko.

fleuve Sénégal mi ngi fi fleuve Gambie mi ngi fi fleuve Sénégal ni muy def bay jox euh, Dakar ndox muy Lac de Guiers loolu aussi yaakaar naa bu ñu ko defoon euh, xëy na Diourbel daan mën am transfert do dex yi dundaat jur gi mën a naan ñu mën a développer euh, agriculture bi ba nga xamante ni li ñuy wax développement économique dina mën a am naataange fii si région Diourbel ouvrir le forum régional bien organisé. Euh, secrétaire exécutif 9e euh, forum mondial de l'eau du euh, Parce que si nous sommes le 9e forum mondial de l'eau, donc nous avons à le Bouan de l'Ukup, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous Malheureusement, au niveau de Djurbel, ce que nous avons dit, peut-être que nous avons dit parce qu'il y a un accès qui est assez suffisant, mais quand même, la qualité bi mooy poser problème. donc ñu bëri si ñi dëkk ci gox-goxaat ñi ñoom am ndox mais ndox bi du doon lo xam ne dinañ ko mën a diko di naan et cetera peut-être ci mën raxas di ci mën tok et tout ça mais naan bi day poser problème parce que fluor bi ak euh, salinité bi ci nek dafa dafa dafa dafa jéggi dayo trop mais mais quand même. Euh, ñongi ngi waxtaan en tout cas avec les acteurs Té, nguur gi aussi mo ngi ci ay projet yu muy yu muy teural pour en tout cas euh, question boobu ñu mën ko ñu mën ko régler définitivement donc lool moñ fi dajalé tay ñu waxtaan avec tous les acteurs yek Euh, les associations en tout cas les services techniques Nous, ñëpp ñoo fi daje tey pour jéem a en tout cas def un diagnostic global wax problème yi lan mooy euh, moo ko mais aussi bu jéem a trouver des solutions pour que bu ñuy demee forum ba incha allah te yaakaar nañ ne ñun aussi dinañu invité ñu mën a euh, wax suñuy problème suñuy jafe-jafe ñu mën ci ñu mën ci andi ay ay saafara incha allah. moom xaw na yàgg comme ni ma ko waxee sànq ministre bi sax ñëwoon na ci pour wax ci parce que yàgg nañ di def ay rapport sur le problème donc waa ak Aquatec ñoom ñoom la ñu jox ñuy gere ndox mi au niveau au niveau rural mais gis nañ ay jafe-jafe yu bëri parce que qualité bi ñuy servir population aussi baaxul. ñom aussi en bon droit ñu taxaw ñu né ndox bi ñi servir baaxul té comme dañuy fay ak facture bu sañoon ñu jox ñu ndox bu baax ñom aussi euh, tok nañ ne duñu fay wa Aquatec aussi deful ben effort pour euh, pour améliorer ndox bi fayul ay facture d'électricité mom aussi mu taxaw né day day day day day couper ndox mi mu andi coow lu autorité administrative ak les forces de défense police ak gendarmerie ñu jéem a xool lañuy la pour ku si nekk li la war nga def ko parce que Aquatec c' est vrai moom mooy distribuer ndox mi mais quand même war na jox lu lu qualité def ay effort mais population bi aussi comme ñom ñoy utiliser ndox bi ñom aussi dañoo wara fay ku nekk dal li la war boko defé je pense solution man na mën na am à ce niveau. waaw boobu am na ay jafe-jafe yu bëri foofu au niveau surtout de Touba donc ak nawet bi passé gis nañu gis nañu jafe-jafe yi mais quand même. Euh, di garder espoir rek te xam ne aussi état bi moom bàyyi na xel euh, mbir mi donc ministre bi de l'intérieur même ñëw na fi ñu jéem a xayit saytu problème bi et ak LONASE ñoo ngi ñoo ngi ci liggéey bi en tout cas pour que problème yooyu en tout cas même bu fekkee mënuñu jeexal lépp lépp lépp sax parce que dafa bëri mais quand même euh, ñoo ngi def suñu kéem kàttan en tout cas pour que yenn problème yi ñu mën ko ñu mën ko ñu mën ko régler. teeru nab euh, nappe phréatique bi loolu aussi lu soxal suñu njiit ñi la donc la commission régionale de protection civile demoon na fa pour xool problème bi jéem xool nan lañ koy nan lañ koy régler parce que ndox mi day ball di di di di un peu la grande mosquée donc comité bi dem na fa service technique gouverneur euh, les collectivités territoriales jéem xayma problème bi ak euh, jéem euh, dégager des pistes de solution te ak nguur gi aussi parce que même le comité interministériel defoon nañ ko xalif bi ñëw délégation ministérielle nous nañ ko aussi ñu def visite bien xayma pour dire a xool nan la nan la solutionner le problème élaboré nañu ay piste de solution te ñoo ngi aussi, ne aussi euh, jébbal nañ ko kilifa yi te ñoom aussi dinañu def li leen war en tout cas pour problème bobu ñu gën ko ñu gën ko bàyyi xel. forum bi ñi waajal moy problème ndox ndox xam nga moy lo xamni xam nañu nu lu ko constitué mais doomaadama mënul defar ndox loolu moom na leer leer na ci bopp ñëpp mënuñoo defar ndox suñ mënoon defar ndox tey du ñu am problème xam nañ ne aussi que ni am na ay zone yu am ndox am na ñu amul ndox am na ay jafe-jafe ci ndox léegi soo dajalee nit ñi ñu waxtaan ci mbiru ndox du ñàkk yàlla mën na cee def sutura ngeen am ngeen trouver solution yoon yi ngeen war a mën a jaar pour régler seen problème yooyu forum bi tamit ci loolu lay yëngu mooy dajale nit ñi ñi koy utiliser ñi nga xam ni seen xalaat ci loolu la euh, euh, màcc ñi nga xam ni connessance yi ñu ci am man war nañ ko mën a partager ñi nga xam ni expérience yi ñu am war nañ ko mën a partager nga dajale nit ñooñu ci benn bërëb ñu waxtaan ci affaire ndox ku nekk wax nu xalaatam et puis ñu seet ci xalaat yooyu naka lañ ciy tëggee solution boo xam ni dana baax pour ñëpp problème yi nga li nga wax léegi ci mbiru qualité ndox mi. ci dëkk yi ci dëkk kaw gi du dëkk du dëkk kaw gi rek moo am ndox am na ay ay ay ay centre urbain yoo xam ni ñoom it ndox mi ñu qualité bi demeewul noonu mais ci forum bi yaakaar nañ ni ay solution danañ ko mën a trouver parce que danañu euh, waxtaan ak ñi nga xam ni ñoom it xëy na problème yooyu am nañ ko ci seen i réew solution yi ñuy trouver pour régler loolu wala solution yi ñuy trouver pour mën a utiliser ndox mi réutiliser waat ko danañ ko mën a présenter su boobaa ñun danañ ci mën a jàng liñ ciy jàng nag ñu ñu appliqué ko fii. thème bi thème bi thème bi li ko waral mooy euh, xam nga jàmm moom fu mu amul dara mënu faa taxaw loolu moom benn la te ndox it fu mu amul kenn mënu ci régler benn problème léegi dañuy dañuy ñaan yàlla. expérience bi li tax ñu tàmm tem tànn thème boobu mooy Sénégal pour la première fois en 2016 au Conseil de sécurité des Nations Unies son excellence le président Macky Sall a posé sur la table un thème thème bi mu posé sur la table c'est eau et paix OEP boobu mooy dem di law di law di law ba ñu àgg tey ci forom bi ak temu forom bi te dañuy dañuy ñaan yàlla rek mu defal ñu ci ñu am ci ndam réew mi yëpp am ci ndaw ñu mën ci nit ñi mën a jàng ci ñun ñu nit ñu mën a jàng ci ñoom.